bi sunu kilifa bopp di Cheikh Mamadou Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko lool di ko sant baax di ko gërëm di am mbégte itam ci jëmm bi tax ndax day kilifa bu mag kilifa jaboote ñëpp te làqal ñëpp yërmande muy mbokk muy tànn muy jàmm képp ku jàkkaar ak moom mu jox la sa wàccuwaay jox la sa cër wàcce dara jàmm ba tolloo ak te xam ne ñun ñëpp mooy suñu kilifa ndax mooy sëñ Basiru du bàyyi ñun ñëpp di sëñ Tuubaa di suñu maam suñu sëy kon ñu ngi koy sant ko gërëm di ñaan mu yàgg fi loolu te wér di teg nuyoo bi nag ci jëwriñ ji ku fa toogal muy sëñ Cheikh Bass moom it suñu rakk suñu xarit suñu mbir la jógee Dakar te jàpp la wéral sant nag sama mbokk yi teew yëpp ñu ngi seen ki waaye boo fi toogoon man dong rek teewal naa ñëpp waaye teewul nag yaatu ñu njëriñ njëriñ bi waaye ñu ci bari dañ koo jëlee. ñu daje teg tawféex ak seen ndimbalul maam li waral woote bi nag ak leeral bu gàtt lay doon. dëkk bi sëñ Tuubaa moom nekkoon fi lu ñu jële ko fi li taxoon ñu jële ko fi nag mooy dundal diina rek ak bañ lu bon ak gëm boromam ku te ku xam na ne jub ba mel ni meetar su doon tax a kon sëñ Tuubaa mucc ndax moo gën a jub meetar waaye nag saay-saay si ak nasaraan yi jiw moo bañ rek wéetal suñu borom ba déllu si bàyyi fi njaboot ak dëkk bi ak diine ñu sàmm dala ak sëñ Moussa ba ci sëñ Mountakha bi ak sàmm ak yow sàmm seen diine bu wér wattu seen taalibe waaye yow nag seen ak jaaxal lii moo tax mu sëkk dëkk bi léegi nag ci réew mi ak ci dëkk te suñu wayu sàmm ko ab si fii mu war leen dala wute loolu loolu rek moo war koo ànd ñëpp nag ndax àll ñëpp la kenn moom ko mu siñ ak jëlawal dëkk te seen traité kon nag lu ko ñëwal kenn ku nekk war a jaar fi nga war a jaar képp koo xam ne da ngaa bëgg Sëñ Tuubaa wala nga yaakaar te lii mu doon bañ bañ léewoo li mu bëgg léewoo féete woo te kenn ku ne war naa féete Sëñ Tuubaa fenn moo taxoon nag day rek daawul Xaadim jóg ci ndigalu Sëñ Saa soo ay nisra yu amoon ñu fi nekkoon di yàq di kontaan yaakaar bi Sëñ Tuubaa tam bëggoon mu gën fi moo na xamal loolu moo sos moo taxaw sëñ Sidi Mokhtar def ci positif nañ ko yéene yëgle ko ñuy ñu nekk ci loolu moom jógee bi sëñ Muntaxa bi nekk fi yeesalaat muy nag dañ ne ko gën a gis soo ci yokkee xorom mu yëg waaye soo ko xamee ñoom waaye ñun nag su demee ba ay doom yoo xam toll nañu moom war naa mën a moo tax ma yëpp ñoom te daanaka tamit teg ko ci loxol sëñ Bass Thioung mii nga xam ni noo ci dem ak ngorom mat na ko diine mat na ko xam-xam mat na ko fullaak ak fayda mat na ko moo tax mu yëkkati ko lool ci war a leer rek ko mën a leer luñ ci war a leer dina ko mën a leer dañ koy teg nag bil xikma wala ma kenn du toroxal kenn sëñ Sadio daana wax na ndax am ñu jóge woon Dakar lu leen naqari la ñu ñëw bëggoon ñu ko saafara di ko taal mu ne ko ab taal bi day comme dox comme demee ba teg ba dégg ñuy wax sëñ ko teg garab nekk di ko ci saafara bu fekk fekk waaye dañuy daal kon fu murid nekk fu taalibe nekk war naa sàmm bi war naa sàmm taalibe war naa téye ngor war naa téye sàmm googu du koy sàmm nag dafa am loo xam ne mën na kon nag ñu ngi ñaan ñoom ñu jàpp ne ci ay ak ay jàngal day naaj ci kii bi waxtaan rek ñoom ñu dalal sama xel ci wàllu boobu kon autorité yi fi teew maa ngi leen sant leen gërëm di xam ne lii ñuy def seen liggéey am na foofu mënuñu baal waaye képp kuñ gis nag mu def naka suñu noonu suñ ko jàppee nañ ko teg seen bopp yéen a xam yoon mun nag mën na la xasul naa pare mën na la tudd saa waaye na nga xam daal yàlla bi ko wax ndax euh, su la bëggee wax day boole def koo xam boo xamul mu xamal loo amul mu xamal ko waaye loo mënul mën ko am na loo xam ne mën na ko yële ko am na loo xam ne xam na ko yële ko kon loolu da ngay xam ne xamal na ko lan mooy tamit naan kon wax ji ñu ngi leen sant bu baax ñun ñëpp di leen gërëm sant sama bokk bokk yi nag taalibe Sëñ Tuubaa yi maa ko fekk dëkkam ba li ñuy wax or ni ko liggéey bi kat dañu wax sëñ bi ko liggéey bi baax baax liggéey bi ci fit liggéey bi ko gën a faax la suñu bopp ñu bëgg nag nga jàppale ñaar ne ko nag yaay suñu jit mu nangu la ko bala ndaje ñu Moussa Diagne am na jamono yoo xam suñ ko sonn te ab daaw moo jëkkoon def naag dinaa rek lañ ko teg loxo seen bés mi sëñ sëñ bés ko nii kon loolu rek laa wax kàddu yi may ñëpp ñëpp waaw